sénégalais yépp kontaan nañu ci le président Macky Sall ci ni mu defee immigration stade bi jaar na yoon kontaan nañu feete nañ ko gis nañu ay joueurs yoo xam ne dañ leen daan dégg suñu ndaw loolu ñu ngi koy rafetlu waaye daf ci am lenn lu ci louche loo xam ne sénégalais yi xam naa ne ñu bari dinañ ci inquiété wu muy lan moo tax Wally Seck jéewul ñu bari toog di ko xaar. ñu bari jóge woon Dakaaru dem ba jam ñaajo ndax lan liñ fa dégg tur Waly Seck ñu bari jóge Ndakaaru dem ba ñam ñaañu jam ñaajo ngir déclaration yi Waly def tey bari na ci ñoo xam ni dem nañ fa ci jeunesse bi grâce à Waly moo taxoon ñu dem fa waa léegi bu ñu demee ba Waly ñëw taxaw sur scène war a jouer réclamer son bi mu war a jouer taxaw fa pendant trente minutes ñu jël Fally Ipupa di teg son muy Fally Ipupa ñëpp gis nañ Waly ànd na ñimi andal def na délégation ñëw taxaw ci kaw chaîne bi wara way ñëpp diko xaar pour mu way nit ñu bari na comprendre ñu lan mo tax Wally Seck wayul mais li tax wayul kum doon yow nonu ngay def ndax nit la bo xamee bi déclaration joté dem na ci stade bi def déclaration woté ñëpp ñëw tay bu ñëwee ba taxaw fofu wara jé réclamation bi mu wara jé diko xaar pendant 30 minutes tégaluñ ko ko il a ce droit que bien mu dem jóge ci scène bi quitter scène bi dem ñibi li tax nak ñom ñu baña jël son bi nga xamni mom la lacc pour jouer ko luñ ko ko lolu ñom ñoo wara a génn leeral ko lan moo tax loolu ñu def ko sénégalais yi mën ko def ñenn ñoo xam dañuy bëggee wali Seck ndax ñi fa jaar ñepp ci ay artistes gis nañ leen ku ci nekk bi nga ñëwee li nga réclamer comme son dañ la ko tégal kon pourquoi wali ñew annoncé wuñ ko déclarer wuñ ni wali Seck yegg na de 1 Dezenbe mou reklame son bi mou reziye takor pandan 30.000 tegol inkoko, mou gen ni nyebi. Kon nan zines bi yip khamne, nan Senegal yip khamne, wali def nen li mwara def. Wali nye ge khamne nyo yoron tabli miksa azi, waron nan tek son yi mou reklame pou jye ko, nyo yon defoul sen drol mwotak mou bayilen fwen yon nyep dem nyebi. Pou ke lunyen wak mba nye def kosen bop, ka bi ni le deme, afer bi ni le deme. Wali sek, Senegal yip kontan nan yon chilinga def. Senegal yip beknen chilinga def, nip foule. nit ku ne li muy liggéey ci lay mën a wane fulla te tey wane nga fulla gu mat sëkk ñu ngi lay encouragé.